ay fay euh, soxna Khady di kontaan ci li ngeen ma dalal ci seen ëtt bi di nuyu ñi ma ko bokkal seqal waxtaan wi ak ñi nuy seetaan tey beral nuyu aussi euh, Bougane seen patron di un grand militant de la démocratie di góorgóorlu bu baax sur le terrain actuellement mu nga kon ñu am mbégte bu baax a baax dalal ko ci euh, suñu numéro bu njëkk euh, ci grand plateau waajal tabaski waaye itam euh, comme nu ñu koy defee à chaque fois ci GP plateau bi du ma fi wéet de l'autre côté ma dooree ko par les dames wala la dame ci plateau bi tey Fatou Abdou Ndiaye Fatou bonsoir waaw Khady nuy naa la bu baax a baax di la ziar également di nuyu suñu invité bu baax a baax monsieur le ministre honorable député Mamadou Diop Decroix di nuyu également Mouhamed Diop ak Mouhamed Mbaye du nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di leen wax ne defoon nañu ko daaw bu fekkee demoon dañuy baaxantal donc spécial tabaski mi nga xamante ne dinañ ci ànd ak ay invité yu am solo mais également rubrique yi wax nga ko am solo mu ngoog à côté mu am càmmeñam xam nga jigéen ak càmmeñ moom dañuy euh, préféré ñuy dend Mohamed man man man yaay sama jigéen de dama maay sa càmmiñ. <laughs> loolu tamit daa bëri histoire te man moom duma ko may dara. <laughs> kenn xajul seen diggante waaw waaw moom moom duñu duñu mayante dara donc maa ngi lay nuyu Khady. Mhm. Khady colonel wala général Khady moom loo ca teg day meex moo tax euh, ñenn ñi taamu colonel ñenn ñi général waaw mais caporal laay bañ daal. <laughs> bu ñu wàcc bu ñu wàccee sunu grade bi. <laughs> maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu également euh, honorable du euh, Mamadou Diop Decroix moom nag dañoo bokk Serigne Cheikh Aliou Mbacké ñu di ko ziare bu baax a baax sa xarit ba sa Serigne ak waa Kër Yaaba yëpp. donc ñiy seetaan émission bi euh, di la gërëm ci sa wuy euh, di suma xarit moom itam di suma jigéen euh, di collègue bu baax maa ngi koy jaare moom it bu baax a baax waaye ni ngeen ma dendal ak moom xam naa ne coow li day bëri rek <laughs> waaye nii baax na ci di nuyu également Oustaz Mohamed mbay Eh, moom itam macha allah mi ngi bay waaram xat yi en tout cas daal GP Tabaski ngi nii fas yéeneen ko door ak yow moom a ah, mbégte nag bokk ak yow plateau bi sincèrement te xam naa ne c'est partagé donc euh, merci beaucoup merci Mohamed mhm. sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam saaxibi naasiri alxaqi bilxaqi talaati alxaqi bilxaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqin wal xaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa saxbihi wa man tabia alhuda bi hëddiyin ila yawmi ddin inaa ataynaaka alkawthara fa salli rabbika wanxar inna sha'naka huwa al abtar xadi maa ngi lay nuyu bu baax a baax colonel général déet oustaz mënoo ko fa yemale ah déedéet <laughs> nuunaani nuunaani <laughs> lam yaktubuhuma xalamun fi kulli nuunin min an nuunaani aynaani aynaani lam yaktubuhuma xalamun fi kulli aynin min aynaani nuunaani kun fayakun maa ngi lay nuyu awa yonent bi ñaanal la jàmm ak sutura yàlla defal la ko nuyu sunu invité yi tamit euh, Diop Decroix euh, tabaarakallaahu nekk nit ku yaru nit ku dal nit ku baax nuyu Faatu Abdou moom itam mu nekk nit ku baax ku yaru tabaarakallahu nuyu sama tërandoo tërandoo di sangu Màkka ak Medina ki waral bés yëpp nuyu mboolem koo xamante ni yaa ngi ñu doon seetaan Grand Plateau ba mu jeex ñu ñëw daje ak yow nag spécial tabaski war a mayewaale nag ay xar ci wàllu ñi nga xamante ni man waa Facebook bi rek laay may tabaarakallaahu ndax bàyyi xel ginn ñuy bàyyee xel ku la safoo na nga ko faale maa ngi nuyu bu baax a baax Mamadou Yatta Saay borom Aquatera Mbaye Diop Jamil ay ca doxalal mu ngoog oustaz daañu maye eh, ay xar comme ni nga ko waxee waaye itam daañu maye xaalis comme ni ñu koy defee à chaque fois et spécialement ci bu bi dina am tombola boo xamante ne cent mille francs eh, moom la nit yi di gagné daañ ci ñëw incha allah ci anam bu gën a yaatu oustaz eh, déco bi également changé balaa balaa ñoo xuus dañ ciy wax diwaan décor moo fi jaar. waaw xam nga. inna allaha jamilun xadi yàlla dafa rafet. yuhibbul jimaala yàlla dafa bëggulu rafet. gis nga Jóob la croix bu jaam solee lu rafet mbaa mu yor oto bu rafet mbaa mu dëkk ci kër gu rafet yàlla day wax malaayika yi ni leen kaay leen yéen a waxoon ni bu ma wàccee ci suuf ay nit dañuy tuur deret xoolal leen ma lee diwu sol xoolal leen ma këram gu rafet gële moo tax ku añaan foo ko fekk du avancé yonent bi nee na alxasuudu ku añaan la yasuudu du avancé duggal lan décor diwaan décor dugg fa xool même boo yorul xaalis sax dugg fa napp sa bopp. xel sa xol da ngay dugg rek yoroo dara. dugg diwaan décor fi xel làmb benn photo yi nii toog ci wéeru yow xam nga ni yoroo loo passé sax retour ñam ci kilim bi tuuti avancé waat tegaat sa loxo ci beneen photo yi wax ak waa ji fa ne ni ko façon bii laa bëgg. léeg-léeg nga ni ko non soxna si sax design bee la gën a soxla. mais jox leen ma seen carte visite dinaa fi jaarat mais tey ku dugg ca plateau bi da ngay bëgg da ngay kontaan tabarakallahu ci waa diwaan décor macha allah. <laughs> mu ngoog oustaz donc tout à l'heure incha allah daañu ñëw ci comme ni nga ko waxee xar yi ñuy maye xaalis bi tombola également cent mille francs yi nga xamante ne à tout moment mën ngeen ko euh, gagné euh, fàtte principe bi changé wul ci page Facebook bi ngeen di dem seen TV euh, l'officiel bu ko defee ngeen bàyyi fa commentaire waaye itam bàyyi fa seen numéro de téléphone ci kanam incha allah dinañu choisir ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jot ci xéwal bi maintenant sans plus tarder ñu dem nag ci rubrique actualité ànd ci ak Mohamed Diop ñu bàyyi la nga jukkil ñu li gën a fës ci actualité tay bi waaw lu bëri xat yi ndax xam naa li ñuy xaar tubaarkàlla bokk na ci tey li gën a euh, dominer actualité bi mooy euh, procès yi nga xam ne euh, ñu ngi koy ñu ngi ko doon nemmeeku en tout cas ci yenn ci ay membre coalition Yewwi Askan Wi tàmbali kook ci Ahmed Aïdara ak ñi ñu jàppandoo woon donc fële ca Géejawaay mu mel ni kon verdict procès bu Ahmed Aïdara ñëpp xam nañu ko xadi colonel Guèye mooy dañ ko condamné benn weer ak sursis maanaam benn weeru kaso wum dul tëdd verdict boobee nag ay avocat ñoom nee nañu euh, d'accord wuñ ci te xaw naa sévère lool lool lool ba tax na itam fas yéene nañu euh, interjeté appel ca noonu juge ba euh, itam daal di nay maanaam retenirul lu dul participation en attroupement non autorisé ak la mbir ya bëri woon yëpp lool rek la ci la ko retenir gàll ko ci ndoddam dañuy fay fekki Younoussa Baldé ma ñu teewaloon ca boobu rek audience Tour d'horloge, le verdict est tombé. Le maire de Guédiawaye et ses co-inculpés écopent d'une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis. Un verdict accueilli avec des cris de joie. ginnaaw juróom ñefi ñuy plaidé ci noonee la verdict bi tombé maire bu Guédiawaye ak it ñooñam dañ leen daan benn weeru kaso boo xam ne duñu tedd ci mbette ak kontante la askanu Guédiawaye ak yiree bii le jugement meeru Géejawaay ak it ñooñam daañu ñibbi seeni kër niki tey waaye ñu koy layool nag nee nañu kontaan nañu waaye am nañu lu leen métti. li am solo ba am solo mooy day ñibbi këram ak père famille yi nga xamante ni ñoom la nekkaloon donc léegi à partir d'aujourd'hui Ahmed Aïdara est libre loolu moo tax ñun am nañ ci contentement. ci ñeenti tuuma yu ñu tegoon ci kaw. Aïdara ak it ñooñam juge bi benn tuuma rek la mujjee retenir. donc fii am manifestation loolu la wax donc écarté nañ yëpp ba mu des attroupement rassemblement euh, non armé donc léegi loolu rek la ñu jàpp su ko defee ñun dañuy def appel ci côté boobu kese kese moo ci des pour continuer le combat mais comme ni ma ko waxee rek. kaa yi di xam ne nii rek procès bi jaar na si yoon nde débat yi amoon na solo lool. xel demoon na ci euh, ñoom Déthié Fall ak euh, Mame Diarra Mame Diarra Fam donc euh, Déthié Fall réquisitoire procureur bi si mois la Euh, bu dee maam Diarra Fam ak euh, ñamo ña ca topp un mois euh, moo di réquisitoire procureur bi ñu ngi xaar itam verdict bi wàcc ngir ñu mën ko baaxee ñi nga xam te ñoom rek ñoom ñoo di téléspectateur alors leneen xat ñu mën a jàpp comme actualité mooy ay doomu Afrique yu ñu gis ne ñu ngi leen di boom te it ñenn ñi seenuk bëggteef wala xememteef du leen lu dul fexe daal franchir frontière uk Maroc ak Espagne image yu doy waar yu nga xam ne mi ngi def euh, euh, quand même euh, le tour du monde donc mu doon ay image yu nga xam ne organisation yu yëngatu ci wàllu migrant ñaawlu noonu ko bu uh, baax a baax uh, tey moom ci réew mi ràññeeku nañ ci uh, horizon sans frontière def na ci ak janago tasul xibaar yi di interpeller d'abord kilifa yi Afrique yëpp ñu àddu ci jafe-jafe wàllu migration ak surtout doomu Afrique ñuy rey souvent ci pàcc boobu diggante Maroc ak Espagne waaye fii ci autorité sénégalaise yi ndax ñoom nee nañu am nañu njottu ci ne doom ci ay Sénégal bokk nañu ci ña faatu foofu moo tax ñuy loolu Boubacar Seye ak ñamu àndal ci ab euh, compte rendu bu Tidiane Diallo émigration nopp ci mi xew ca Espagne Horizon sans frontières mu ngi koy dénoncer image du traduire lu dul pat pataaral ak indifférence des autorités africaines ci drame bi ni kenn waxu ci ba léegi Boubacar Seye di xamle sénégalais yi bokk na ci ñiy ñàkk seen bakkan ci mbir mi. parce que ku ci sa mbokk bokkul rek sa dëkk doogu ci. kon tey responsabilité il faut ñu situer. organisation bi di woo kilifa yi nañu ubbi enquête ngir ñu leeral mbir mi. tey il faut situer les responsabilités ñun dañu wax ne il faut une enquête une enquête très sérieuse moo tax ñuy interpellé Horizon sans frontières nga xam ni c'est une organisation espagnole di interpellé interpellé le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Horizon sans frontières mu ngi ere njiitu réew président Macky Sall nekk président bu Union africaine na wax ci mbir mi ci occasion bu sommet G7 bi. Mohamed muy muy lu doy waar ñu koy ci interpellé mais malheureusement ci tweet la ko yemale. waaw ak sunu invité mu joxe ci xalaatam mais xarit dafa mel ni euh, Barça wala Barsax wala mbëkk mi moom. Euh, tout moment da dañ koy dund xaw ma nag euh, lan mooy tax doomu Afrique saa su ne ñuy bëgg génn réew mi wan ko càmbar waaye leneen lu koy firndeel mooy sunu ñetteelu bi ñu nemmeeku ca département bu Bignona ak pirogue bi nga xam te wala gaal bu nga xam te da doon transporter ay candidats à l'immigration ay nit yu bëggoon a jël itam mbëkk mi euh, mbir ma xaw a tàggatémbe euh, gaal ga këppu euh, ca Kafountine mu ma am ñu ci bëri bëri jamono ji kenn gisu leen ñu ngi ci jaa ñu ngi ci téye wala ñu ngi ci sauvé jamono ji wax nañu ne ñu ngi rek ñu téye ca gendarmerie bu Kafountine bëriwaana également euh, ci euh, ñoom euh, ay soxna waaye tam candidat à l'immigration gis nañu ne également ñu ci bëri bëri léegi nekkatul doomu Sénégal waaye fii ci Sénégal en tout cas départ yi dañ fi nemmeeku ay doomu Guinée ay doomu Gambie loolu tam lu doy waar dañuy dem foofu ca fekk fa Abdourahmane Diallo bëri ci jële ay gaañu gaañu ñenn ñi ñu rawale leen ca l'hôpital régional bu Ziguinchor ay nit yu réer ci biir géej bi 88 ci ay rescapé nga xamante ne jot nañu leen enregistré ci ñooñe ñu ràññee ci ñaari jigéen li mooy bilan bu njëkk bu l'accident de pirogue bi nga xamante ne jot naa am guddi bi ñu jënn ca Kafountine nekk ca département bu na ab gaal bi nga xamante ne mu ngi yeboon lu ëpp ci téeméer ci ay doomu aadama ñëpp doon ay candidat yu immigration clandestine moo daal di takk ay ginnaaw bu mu embarqué ca ilool di ab île bu nekk ca basse Casamance bu ñu sukkandikoo ci rescapé yi safara si nga xamante ne moo waral incendie bi am mu ngi tukkee ci ab cigarette bi nga xamante ne kenn si ñoom mu ngi ko doon tuuf ci biir gaal gi candidat yu immigration clandestine yi lée ñu ngi jógee ci ay réew yu bëri lool ñu ràññee ci ay sénégalais ay bissau guinéen ay gambien ak it ay guinéen yu Conakry recherche yi ñu ngi wéy ba léegi ngir fexe ba gis ñenn ñi nga xamante réer nañu ci biir géej gi di fàttali ni doonul guléet ay candidat yu immigration clandestine di embarqué ca commune bu Kafountine ñu ngi fàttaliku teg loxo bi nga xamante ne gendarmerie nationale jot na koo teg loxo ñu bëri ci ay ndaw yi nga xamante ne ñu ngi doon dem ca réewum Espagne jaaree ko ca boobule collectivité territoriale. Look. voilà xale yi ci euh, actualité bu nu mën a jàpp tey en tout cas euh, mu nekkoon actualité bu nga xam te ni sénégalais yi suivre nañ ko te certainement également euh, au au cours justement de l' émission peut être daañu am gën a firndeel xibaar yi nga xam te ni jox nañu leen ko mu nekkoon seen rubrique actualité. mu ngoog euh, jërëjëf euh, Mouhamed Diop ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, ci li mu indi ci foofu sax dañuy fay taxaw Mouhamed jël ci aviou suñu invité honorable dégg nga ko léegi ñi nga xamante ne ñoom la ñu tegoon loxo mu nekk ay opposant bokk ci Yewwi Askan Wi tey ñu leen doon àtte pour kaawu ay Aïdara pour commencer nan nga ko gisee waaw maa ngi lay gërëm bu baax soxna Khady Colonel <laughs> waaw affaire bi naqari na ma trop. vraiment parce que euh, jàppoon naa ne mënoon na bañ a yegg si fii euh, bind naa ko ci sama page Facebook euh, man mi kañ nañ ma mujj jàpp yàggul de bon ma fanaan police bët set gars yi bàyyi ma mu bi jàppoon naa ne aussi ne bi gars bi ñu jàppee ñoom Déthié Fall ñoom Mame Diarra ñoom ay dara Euh, xëy na bon bu lëndee wala comme niñ ko daan defee rek ñu bàyyi nit ñi am amaa jàpp gi sax du yoon. Mhm. voilà mais bu amee it vraiment comme niñ ko daan doxale rek nga bàyyi bàyyi gars yi ñu ñibbi mais euh, affaire bi dafa yéeg cette fois-ci ba tribunal ba mu am ay atteek yu mel noonu euh, man jàpp naa ne waroon naa mën a ñàkk. loolu lu muy tekki rek mooy dafa mi ngi ñoo ngi ci.